buñ jógee ci Demba Ba jóge ci Isiar Dia dañuy ñëwaat euh, di nuyu képp koo xam ne nag waxtu bi yaa ngi am euh, xel euh, di bàyyee émission bi ji alaaji du Diayité nekk ca Banjul ak soxnaam Ajaratu Ramu Sakho nekk ca Banjul ki leen di nuyu mooy Oumy Ndiaye ak Wande Ndiaye nekk ca Londres nuy nañ leen waaye tamit di ci am mbégte ak contentement bu mag di nuyu tamit sama xarit sama jigéen Ndeye Roxoy Thiam nekk ca Kassor sama jigéen la ku sopp El Hadj bu Bilal la nuyu nañ bébé Fatou Mame Diarra Serigne Saliou nekk ca et leur maman Fatou Ndiaye agence DCAO bu centenaire ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte di nuyu tamit Bijou Gueye taalibe sëñ euh, taalibe sëñ euh, Saliou euh, Mbacké ñu koy ziar bu wér moom Bijou Gueye nekk foofu ca Sicap Foire am nañ ci mbégte ak contentement bu mag boo xam ne mu ngi ànd ak ñun ci suñu émission moom ki nga xam ne mooy Bijou Gueye di ñu wéccali di ndaanaan bu mag di doomu ndeyu Omaro mbokk yi wax nañ leen ko démb Amath Dansokho ca assemblée nationale ca kaw fi nga xam ne fa la euh, Moustapha Niasse nekkoon di joxe ordre pour nañu di wax boobu Dansokho ma ngay nelaw nelaw yu metti yi nañu xool Dansokho bu nelawee ba jaaxleentiku ndax ba caméra yi teg ko nan lay def ak nan lay doxalee moom Dansokho démb ca déclaration politique bi. Euh, affaire bi dafa yàgg tarap tarap tarap moom dafa Abdoul mbay dafa teel a ñëw dafa teel a ñëw tarap. man sept heures la ma Macky Sall yee na ma euh, gungeel sa doom euh, Moustapha Niass jaar kër ga ay eh, neuf heures moins le quart euh, ne ma ay ca benn lay doon ba léegi ñu ngi wax ba tey ah ah, eh. ah, ah. Moustapha yéen a ngi ci affaire yi baax na ah ah ah Moustapha a ngi ci affaire yi ba tey baax na nga nelaw ma damay xalaat rek

léegi fan ngeen toll ah Abdoul Mbaye mooy wax ah baax ah maa ngi maa ngi wax l'État du Sénégal a un soutien indélébile à Abdoul Aziz Mbaye le projet de loi de la déclaration. Anna ak Moustapha yéen a ngi ci kii baax na waa PDS dañu mal éduqué ils sont indisciplinés 啊啊，晚安啊啊啊啊！晚安。